asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 14 novembre 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay moo xam yëglikaay bi di sunu làmb la record la tribune Leewtoo TV ba ci Leewtoo point net fu nekk tey bi nu xëyee ay xibaari làmb mu nga fa bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom la mu xëyee lenn la maanaam diggante Modou Lo la ñëw ak Nicolas mi nga xam ne nii mooy promoteur bi ko bëgg a tëgg te proposé ko xaas bu tollu ci cent cinquante millions wala ñu jéggoo ca sunu làmb mooy wax du samay wax mu wan ñu nag lig Modou ak ak papis li leer nag yëglikaay bi ne Modou Lo fi mu nekk ni moom feere la ñu ko def ci ki nga xam ne ki noonu a na ci moom ci ay jàngat ci koo xam ne daal xaas bi nga xam ne nii mu ngi koy bañ ren bari na ndax yëglikaay bi nen juróom fukki millions di cinquante millions la njëkk a delloo contre mag Tafatine ñu ne déet ne waay ñu fayaat ko quatre vingt millions maanaam juróom-ñett fukki millions ci diggante mag Modou mel ni ba far jaara fa perte yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci mooy écrit bi nga xam ne nii day moom moo di seen Gambia écrit seen Gambia nag daa mel ni daal seen affaire xaw naa tane ndax nag yëglikaay bi na cinq victoire am nañ ko am ñetti défaite yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw tey di nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci muy ki nga xam ne nii day moom moo di Boy la fi woon wane woon fi boppam ci làmb a baax ba te fan yi mu nekk Espagne daal daa mel ni tey bi nga xam ne nii day moom moo di sunu làmb ñëw na ci lu yaatoo yaatoo yaatu ñëw na ci mbir rëg-rëg ñëw na ci diggante Sa Thiès ak Gris yëglikaay bi daal xëy na tey dal ki nga xam ne nii day moom moo di Boy Seye mu xëy ñëw wax ci lu yaatoo yaatoo yaatu ñëw na ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène ci ñoom ñaar ko ëpp xam-xam ci wàllum lamb mu mel ni ki daal Boy Seye tey wax na ba xaabaabal ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb keneen koo xam ne ni moom dafa xëy attaqué muy ndandi faal mi nga xam ne sunu lamb ne na ñetti defe tam la tëdd waaye taxu ko bàyyi de moom daal général bu Fass la xëy dëkk mu mel ni ki daal moom mburum Fass la bëgg wan boppam fi mu nekk ni ki nag ñooñu mu xëy def leen bëgg a yar maanaam jubbanti leen ka jëkk mooy caatu seras wala guy gi quatre-vingt-quinze vie daal ni na ku ci ñëw dina la teg ci aw yoon jubbanti la ba nga jubbantiku keneen koo xam ne moom aw yoonam la nekkoon di dem muy alburi ba nga xam ne moo nekk ca kaay ba mu mel ni ki nag ñàkka daanu ga mu nekkee woon sunu làmb da caa ñëw naka ko freiné nag taxawloo ko du kenn ku dul ki nga xam ne moo di njaay tin di rak ci kii nga xam ne nii moo di tafaatin moo ko freiné taxawloo ko tem ne ko yow foofu fa ngay yem leneen loo ñëw nañ ci muy ki nga xam ne moo di record record nag bi mu xëyee ñëw tey lim ñu defal ci jàngat lu yaatoo yaatu la maanaam daal dafa ñëw fa nga xam ne mooy stade Léopold Sédar Senghor nga xam ne la ko commencé 1993 ba 2017 wala ba mille 2019 boobu ñu nga cay bëri muy ñaar fukki at ak juróom-ñaar maanaam vingt-sept ans mu mel ni ki nag am na fa ay mbër yoo xam ne moom neex la nañ fa waaye am na ñoo xam ne moom naqari la dëgg lañ fa def rawati écurie bi nga xam ne moo di Fass moom yëglikaay bi na boo bëggee dégg-dëgg jongante yi ñu def stade Léopold Senghor yépp dañu koo ñàkk amu ci benn boo xam ne gañe nañ ko am na fa ñoo xam ne moom dañ faa neexle naqari la fa muy Eumeu Sène ak ki nga xam ne moo di Bombardier Eumeu Sène am na benn ndam am fa waaye itam fa la ko ñàkke ki nga xam ne moo di Bombardier am fa benn ndam am fa benn défaite mu mel ni ki ñoom itam seen mbir foofa neexu fa fa Lac de Guiers tamit daa mel ni moom tamit neex la wu fa Modou Lo moom ñetti combat la fa def am ca ñaari ndam ak li nga xam ne nii day moom moo di benn defet yëglikaay bi ba tey moo ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ña nga xam ne nag moom dañ faa def lu leer nañ len luy sikk daal jëliwuñ ko fa maanaam seeni mbir daal leer stade Léopold Senghor nañ mooy ki nga xam ne nii moo fi nekkoon roi des arènes di yax ya juub Yékini moom daal combat yam fa jot a def yëpp ñett yëpp da koo di Balla Gaye numéro 2 moom combat yam def tamit toll si ñaar yëpp yëpp da koo mu mel ni ki ñoom boo bëggee dégg-dëgg stade Léopold Senghor diggante yax ya juub ak Balla Gaye ay zéro faute la ñu fa maanaam lañ fa jot a génn yëpp ay ndam lañ fa jëlee mu mel ni ki nag ba tey dañuy jëm ci Leewtoo point lañ fay fekki mooy ki nga xam ne ni mooy Ndeye Coumba Fall ci xalimaam mu xëy di defet ak ñoo xam ne ba ñuy génn ndam la ñu génnee Manga 2 ba mu nekkee roi des arènes bay bàyyi làmb ba muy dem victoire la génnaale yóbbu ko Yaxya Jóob moom nekkoon na roi des arènes donte reñe na quinze yoo xam ne daane sukk waaye ba muy bàyyi làmb itam defet la fa jëlee moom tamit nekkoon roi des arènes te benn at dese ko mu mel ni ki moom ndax dina am combat wala su ko amee ndax day génn ak défaite wala day génn ak victoire loolu laajum ndey kumba fàll ci Leewtoo point net bu ñu delloo record tamit dañu ñëw Abou Ndour ba tey ci xalimaam ñëw na nag ci ancien gloire yi nga xam ne ci ay jafe-jafe lañ nekk ci wàllum wéradi ka nga xam ne mooy Mohamed Ali Fagade ak ki nga xam ne nii day moo di Balla Gaye Ndour jàppal mu mel ni ki ñooñu ba ca Pape Diop Boston kera nag seeti woon nañ leen Abou Ndour ñëwaat na ci ka ko doon def moo di mànga mànga nag mu ngay wane ak yooyu nga xam ne ni moom la gis kër maanaam xol bu tooy ak yërmande la ca jële la tribune moom Balla Gaye numéro 2 li ñëwaat ak Modou Lo nañuy def ba ñoom ñooñu ñu dajawaat maanaam seqa lu jëm ci wàllum làmb waaye li leer ba leer day te ñu war ko bàyyi xel mooy li nga xam ne nii lay moo di sunu làmb door bi jàppal yëglikaay bi na résultat yi nag samedi lay génn sunu làmb door kon résultat yi samedi lay génn ñu xam kan mooy gàddu or ba waaye li leer ba leer moom Sénégal na mu commencé ci Coupe d'Afrique yi ah dal nam xel benn sorti ñaari bii nga dugal ko ka nga doon fubalal amul dara ña ko def nag mooy doomi Cees ya Sidi Sarr ak ki nga xam ne moo di Habib Diallo kon les Lions félicitations allez rek qualification pour mondial pour bokk Coupe d'Afrique bay am ca Cameroun 2021 loolu laa wax man te nag bii yoon yàlla bu ngeen ko rate yàlla na ngeen jël coupe bi Sadio Mané mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon ci revue de l'arène bi nu ànd ak yéen ci jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. fay naa la Ndeye kumba Fall <laughs> di nuyu internet Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a si àddina bi rek di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci ñoom di leen balu àq te di leen baal di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu jégal te defal ñu saxaadatu daara ni barke nent bi sallallahu alayhi wa amin Babacar Babacar na lu ñëw nag si quotidien yi nga xam ne tey noo wax si làmb sunu làmb euh, record tribune Leewtoo TV ak Leewtoo point net ñu commencé nag ak sunu làmb sunu làmb nee na ginnaaw bu Luc Nicolas feeree Modou Lo si 150 millions est que nag nee nañu Modou Lo léegi nekkul prisonnier euh, ki nga xam ne mooy promoteur bi Luc Nicolas. waaw 150 millions maanaam ñu feere ko maanaam ñu bu la neex sax nga ñu tëj buntu bi jël caabi bi sànni ko géej bu dee prisonnier tamit. comme moom noonu mu ko waxee mais man li ma xam daal mooy que ni yaakaar naa Modou Lo staff bi mu yore ah ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey yaakaar naa warutam waru jàpp mu ne dina nekk prisonnier kii wala këli li ma mën a jàpp nag mooy mën ngeen a waxtaan ci contrat déggoo ci contrat yi signe ko ndax itam mbër la bi nga xam ne booy xool ci wàllum carrière am da ngay xam ne kii professionnel la te ñi ko wër tamit du ñu ay ngaaka. ci sama jàpp ci li ma gis mu di ko doxale parce que loolu la gis si moom lool nag su amee yaakaar naa ne jàpp ma ne am na benn promoteur boo xam ne nii war na ko mën a jàpp en otage ci kase boo ko jox wala téye ko ba tax nga war koo xañ mu bëri ji man duma foog loolu terewul nag diggante mag Luc Nicolaï relation humaine am na fa parce que loolu day am nit ku ne am nga sa xarit am nga koy defandool am na koo xam ne balaa ngay dugg ci dara tàggu ko àddina moom moo tëddee noonu yaa ngi dégg mbër yi ku ci ne am na koo xam ne nii ci promoteur am ngeen ay yoo xam ne dafa dépassé mbirum xaalis ak yooyu diggante moo doog lig loolu am na ci mais kantaan nag ci côté personnalisme maanaam côté fay bi fooguma mu ko que ni moo dina nangu nekk prisonnier kii wala kële bu fekkee ci cadre liggéey la quoi Babacar nag journal mi ngi ne xamal ne ki nga xam ne mooy Ama Baldé te Luc Nicolas doon dox combat am ak Modou Lo nee ñu est que moom tamit instant bi dóoru loxoom si ëkk parce que bañ na 50 millions Pa Abdou Fall bañ na 80 millions Luc Nicolas nee ñu est-ce que ren jii sax du perte du du perte lépp. xam nga ëkkam ah <laughs> yow defe naa tudd nga ëkk waaye xam nga ëkk de ëkk ca àll ba lañ lay nekk des fois garab boo xam ne nii day daa dafa daanu ba kii ba loolu mooy ëkk des fois saa bu ci sa loxo dalee wala sa tànk moom bu keroogee da nga yëg lu méttee méttee métti amaa nag ah bu tekkee dóor loxoom ci kii yi xam naa dina desee wóor xam naa ne li li am ba des mooy li tax gaay bi ñëw ci loolu mooy que ni su ma ci daaw ba ren sax mën nañoo wax ñu ngi koy fay ay kase ndax daaw ci digganteem ak Siteu for nañ ci wewu bëy wala ñu dëkk ñu ko bëggoon que ni fay nañ ko 70 millions pour mu bëreeg Siteu ñoom ñu refusé. loola amul ren saison bi ci ci biir saison boobu ñu dox diggante ak Tapha ñu dem ba saison bay lang promoteur bi ne day xat saison ba ubbi mu démarché ko bañ juboo ñu ne fay nañ ko 50 millions ñu ne 60 millions ñu demaat ba deuxième mu bañaat ko tey contre mag Modou Lo ñu ñëwaat ñu ne fay nañ ko 80 millions estafam bañ tamit ne loolu du du ci dal kon yaakaar naa loolu soo ko boolee xaalis la boo xam ne ni nii bu bëree bëril ci ay kase yoo xam ne proposé nañ ko fi pro maanaam ko koo wax li am li ñuy nangu pour bëree waaye xam naa daal li leer ba leer moom mooy que ni ah. na xoolaat mbir yi bu baax a baax estafam tamit nañu xoolaat bu baax a baax li ñuy def parce que nag la ci carrière am la toll war a wane boppam bu baax a a baax si làmb am na ay kase yoo xam ne suñ ko koy fay nañu xool ñoom ndax méngoon ak ama ñu jël ko parce que nag euh, loo xam-xam waaye waaye gën laa xam boppam loo xam-xam sàmba sàmba gën laa xam boppam ñoom ñoo xam seen mbër li muy jar mais xam naa daal proposition yi ñu koy def daaw ba ren moom mu ngi ñëw bu fekkee nag dañoo refuser ñett yépp moom ah man loolu du dal sama xel Babacar nag ñu ñëw ci euh, résultat examen yi xam nga euh, depuis bu saison tëjee ba léegi écurie bilan sunu lam noonu def écurie euh, bilan écurie yi sam nag lañ joxe résultat bi dañuy seet nag comme mooy wutu li nga xam ne mooy écurie dóor dóoraat bi jëloon daaw ngeen ma door waaw maanaam sunu làmb door bi kon daal boo bëggee dégg-dëgg samedi la ñuy génne résultat yi wax ku jiitu ah waaw dóor dóor parce que dóor moo koy jël wala moom mooy ñëwaat jëlaat place am loo ci mën a dégg nag moom xam naa daal li am ba des mooy kon nañu bàyyi ba samedi ak jàmm rek comme samedi soreetul bu soobee yàlla bu samedi ak jàmm dañ xam kan mooy uti écrit boobu nga xam ne moom mooy door dóoraat suñ jógee nag la laam dañuy dem fi nga xam ne mooy record si micro si si xalima Abou Nour Abou Nour mi ngi ne xamal ne na euh, depuis 1993 ba 2019 ñaari mbër donc noo mos a am foofu ñaari victoire muy nii ak Balla Gaye Fass moom bëre na fa mais zéro victoire am Babacar waaw loolu moom lu doy doy waar la parce que boo bëggee dégg-dégg Léopold Senghor kon 93 ba 2019 ça fait 27 ans ñu ngi fay bëre ah Fass mosu fa am ndam ah waaw parce que yaakaar naa ne Tapha Gueye diggante mag Lac de Guiers seen combat bu njëkk dañ fa mat si ñu yaa ngi dégg te fa la ñàkkee woon yaakaar naa moom ak Mor Fadam. yal na yàlla yërëm Mor Fadam taxare ko aljana ñàkk na fa ay combat Gris Bordeaux tamit bëri fa ak Baboy ñàkk bëri fa ak Balla Gaye numéro 2 ñàkk bu dee Balla ak Yékini la nag ñoom ñoom boo xoolee ñoo fa gën a neex la parce ñoom ku ci ne sorte ya fa jote def da ci am ay ndam bu dee yax ya ya fa jote génn yépp ay ndam la ci jëlee Balla Gaye 2 noonu am na ñoo xam ne tamit seeni mbir dafa maanaam safa fa suukar safa fa xorom ku mel ni Bombardier ak ñoom ñaar bu dee Modou Lo ñetti sortie la fa am am fa ñaari victoire ak benn défaite kon mu mel ni ki daal kon Léopold Senghor itam nag na stade boo xam ne nii ah stade bu marqué histoire u làmb Sénégal la benn VIP nag comme ni ko yëglikaay waxee moo fa jot te bëre mooy tafaatin boo xoolee mais boo xoolee ñi des ñi des ñëpp parce que jot nañ fa takk ngeen bëre fa quoi. waaw kon suñu jógee nag su dakoo dañuy dem fi nga xam ne mooy tribune tribune daal dafa def benn taxaw seetlu ne euh, Modou Lo ak Balla Gaye mën nañu bërewaat. comme que euh, ni moom daal si si gëstu bu Moussa Pa Moussa rek dafa ne su fekkee ni Ama Baldé nanguwul euh, cachet buñ ko fay ki nga xam ni Tapha Tine aussi Modou Lo bëggul bëreeg moom xëy na Balla Gaye am na chance pour bërewaat la DER te troisième combat moo ko Modou Lo. maanaam nees di def ba ñu parce que itam comme Modou bu jëlulee Ama wala moo moo Ama jubawul xëy na mu bërewaat ak Balla ah waaw loolu lépp mën na parce que lam comme li ñuy wax rek du biir dee xëy wasin war na mën a nekk waaye tamit terewul ma ne naa xaar leneen ah parce que Modou ak Balla moom man gëm naa ne ak lu mën a xew bis dinañu dinañ bërewaat. parce que loolu muuru tey dafa am li nga xam ne nii ci làmb bëgg na ko euh, défi boo xam ne bëgg na ko relever mooy digganteem ak Balla parce que mbër la te xam naa ne ni ma ko gisee borom jom la yaa ngi dégg kon xelam li ci nekk mooy mu fexe ba daan Balla Gaye 2 kon seen combat du mën a ñàkk te Balla itam jàpp na ne moom moo mën muudu kon loolu nag su amee ci ab diggante te ñu nekk ci seen carrière jeexalaguñu làmb kon xaaral seen troisième combat war na mën amaat xaw ma nag actuellement lay doon xaw ma ñoom ñaar kenn ku ne di nga bëriwaat combat ba pare waaye nag par rapport benn combat ba pare a dajewaat waaw Babacar su ñu jógee nag si nañu dem si leoto point net Leewtoo point net dañu def benn jàngat ne euh, en général roi yëpp suñuy ancien roi yi yëpp suñuy bëree suñuy bàyyi bëree ak defet lañuy la ñuy bàyyee bëree ku si mel ni Yékini bi muy bëree la de Guiers bi muy bàyyi bëree la de moo ko mujjee daan ku si mel ni euh, Tyson bi muy bi muy mujjee bëree bi muy bàyyi bëre Yékini moo ko moo ko daan kenn daal benn si mbëri rek ancien roi doog moo bëre ba bàyyi bëre amul défaite yóbbaale victoire muy muy Manga 2 waa loolu moom boo ko bëree ba maanaam lu lu la quoi mbir la moo xam ne parce que ñoom ñëpp ku ci nekk xëy na ak na nga génne ak ni ngay ni ngay kii li am solo nag mooy que ni bu fekkente ne yax yàlla moom ku ne gis na ni li mu ràññee ci làmb 15 ans de règne ba bi muy génn ci la ko ñaari defet topp. muy digganteem ak Balla Gaye ak dernier combat digganteem ak Lac loolu nag day am xëy na bëggoon na génn ci grande porte bi mais xëy na yàlla moom moo dogal parce que tamit ngay génn ci làmb war a jeexal daje ak xale boo xam ne dafa ne ci yoon ah pour nga daan ko dina xaw a jafe xëy na loola indi loola ko dal bu dee nga xam ne mooy Tyson tamit même lu mel noonu moo ko arrivé maa nga nag yàlla dimbali na ko moom ba mu bokkul ci loolu moom bi muy génn génne na ak victoire ki ci mooy Bombardier benn saison ko dese ñu xool tamit ba xam ndax day génn ak victoire comme Manga wala def ni ñi nga ne ñooy ay moromam génn ak défaite loolu moom suñu kanam la nekk Babacar suñ jógee nag si Leewtoo point nag dañuy dem si Leewtoo TV Leewtoo TV Babacar Seck nga fay waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ne mooy Reug Reug ñëw na si combat yi nga xam ni moo nekk si kanamam ñëw na aussi si avenir am si lutte wax na si tamit wax si mariage bi nga xam ne ni nga ko doon laam-laamee ne am na jabar wala amul tontu na si moom daal waxtaan waxtaan bu yaatu daal si si si euh, si micro Leewtoo TV wax na tamit si guy gi nee na guy gi daal du si wax parce que mbër bu ko respecté wul la Babacar. waaw waaw moom daal xëy na wax lu yaato yaatoo yaatu vidéo la nag képp ku dem Leewtoo TV di nga ko fa fekk moom ñëw na ci lu bari di dem ak Ama Baldé ak Boy Niang Boy Niang moom day bëree ak moom parce que même rakkam bu mu bokkal ndey ak baay bu doon ànd ak Boy Niang sax du tere dañuy bëre moom la dëggee ren suñu bëree da koy daan ba war ko moom loolu ay waxam la du luñ ko sosal mu ngi ci biir Leewtoo TV soxnaam ak yooyu yëpp nee na loolu moom vie privée am la du ci wax wax na lu baree bari daal moom rëg-rëg mu mel ni ki tamit mbër la mi nga xam ne mbër mu dogu la mbër mu gëm boppam la ba xam ne nii maanaam daal mu ngi ci biir ay waxam da ngay gis ne que moom day jàpp ne moom ku mu bëre rek daf la war a mën a daan te puis tamit loolu bonul ci mbëran ah, mbër moom da ngay jàpp ne que bu fekkee euh, da ngay am ambition quoi am loo bëgg am loo gëm parce que loolu mooy tax nga mën a yegg au sommet quoi waaw te def naa si tànk yooyu la nekk si kàddu yooyu la ñuy euh, tàggoo ak sunu mbokk internet yi di leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay mère Sow euh, sa yaay sunu yaay euh, naan ko jugal ak jàmm yàlla yàlla fëgg bopp bi mu jóg si jàmm nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu astandine DG Barama Chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Fallou Rokhaya Moussa di aussi ki nga xam ni mooy Mbaye Diop depuis Ouest Foire di nuyu. Abdou Gueye euh, doomu ndey Siteu depuis États-Unis di nuyu ki nga xam ne aussi Moïse Bombardier yëbbisi na Babacar waaw di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp rek man sama nuyu tout le temps dama ciy jiital internautes yi parce encore une fois ñoom ñooy rois pour man fii ci Leewtoo TV parce que li tax mooy ñoo jënd connexion di seetaan Leewtoo TV kon ñooñu amuñu seen fay encore une fois di leen ñaanal jàmm leen wax ne saa yu ngeen xëy rek yal na leen yàlla di may connexion bu ngeen koy mën di seetaanee mais nag di wax tey happy birthday to you joyeux anniversaire sama benn rak 19 bi di jeex sax yal na la yàlla may soxna su baax ndax xale la ku yaru la te soppe Babacar Laat Seen di ci profité di nuy waa groupe baax yépp rawatina président bi Massamba ji ak Laat jot sama rakk ñoom ñëpp maa leen di nuyu di leen ziar di ñaanal ñëpp jàmm ñoom tuuti yaay Sarr Khadiros Ndiaye Asi Diagne sama séri ca Nouakchott du ma ko fàtte mais tamit di nuyu Zal Fay borom marché ti leen ndax gis nga lakos bi démb moom la lakos bi tey moom la tubéy ji Zal la daal yi kot su jamono la Zal ñëwal ci yàgg maar séri sala man nag nga defal ko dara ak Ndey Kumba Fall kon daal yàlla na yàlla def jàmm daal. musu incha allah.